Assalamualaikum, suñu mbokk internet yi ñoo ngi leen di siyaar baax di leen nuyu di am kontante ak mbégte trop ci teew bi nga xam dañ ko fee teewaat seen émission ëttu Doxiduna tey bi dafa am ñaari mbir yo xam ni bi am na yéene yi gën koo leeral bu baax a baax mbir yooyu nag yaakaar na ne ndam la ci ñun waaye tamit ndam la ci mboolem dafa safo liggéey bi ñaari mbir yooyu mooy yan mbir bi ci njëkk moom mooy démb am na xibaar bu ñu joxe fii ci tuuxi doona boo xam ne jaar na fi muy ñaari mag ak rakk te mag ji génnewoon woon rakk ja ca France yàlla dogal na ne benn kilifa gu mag ca faranse woote na fi ngir mën koo dimbali kookee nga xam ni loolu loolu dal waaye nag li ci am moom mooy ku ne xam na ne suñuy contact dafay bari te yàlla dafa dogal moom woo nañu numéro bi nekk am nañu ko ñu ngi ñu ngi numéro bi am nañ ko waaye dañ ko enregistré xëy na lañ ca bind lan fàtte ba mënu jox kook moom waaye nag ñu ngi koy lancé appel bu fekkee gis na vidéo bi na woote ci numéro bi mu wootee woon su ko defee dinañ ko mën a boole kilifa googu ba yàlla mën ko may mu am liggéey bu baax te barkeel ndax émission bi loolu lay jariñ mooy génne ay solution ak i njariñ benn naa ngi noonu ñaareel bi mooy fan yële passé waxoon nañ leen benn xale boo xam ne dafa nekk Argentine daan yónnee magam lu toll ci fanweeri million pour magam tabaxal ko kër yàlla def kër googu jàppandiwul mu delaat mu delaat Argentine am fa feebar bu rëy feebar bu mag boo xam dal na ko fa Argentine ba mujj bi xale ñoo dajale foofu 3 million ngir bëgg koo faj yàlla àntuwul xale boobu nag am nañu ay novel am ne xale bi ñibbisi na fii ci Sénégal yàlla dogal na sax woo nañu ñun démb am na yéene ñëw fii ci plateau bi ngir nettali ci làmmuñ borom la dàqee bu ko defee loolu lépp ngeen xam ne waa kër gi seen liggéey moo toll foofu loolu mooy firndeel liggéey waa kër gi ni muy doxee ginnaaw loolu nag ñu jublu ci li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moo fi am tey ci na nga xam ne ma nga amee Argentine lan moo xew Argentine dafa am waxambaane góor yàlla boo xam ni fi mi fii la juddoo màggee fi yaroo fi yàlla def nekk mu teel a dem tukki dem Argentine ci jamono yu muy neex dëgg-dëgg ba mu fiy jóge nekk dafa bàyyi ay wéy juróom jàppuñu ci dara mu dem ak njomom ak ngorom ak xam la ko yóbbu teel caa taxaw ba mu ca taxawee nag yàlla may na ko ak tuut mu tabax benn kër goo xam ne ci la ñaari way juróom dëkk yàlla defaat na mu delluwaat ca réew moom di góor góorlu góor góorlu gu am solo ba mu waññoo waatee ci ñaari lu ñëwam ba ci la ko ay way juróom wax ne ko tee ngaa jël soxna boole ko ci ànd ga bu ko defee muy tax ngay mën di dem ak a ñëw ndax xam ngeen waxambaane bu fekkee dafa tukki te bàyyi fi yaay wala bàyyi fi soxna ñaare mën a yàgg àll moo tax mag ñi daan digal ndaw ñi bu ñuy tukki nañ fi bàyyi soxna loolu dana wommat ndaw sax ndax mu gën a góorgóor waaja ndax mu gën a góorgóorlu pour mën a teel a ñibbisi waa ji nag def na ko yàlla dogal mu dajak sono su baax te barkeel yàlla na yàlla nattal sëy boobu waaye nag waa ji delluwaat na ca ginnaawam ndogal gu rëy mujj na caa am ca ginnaaw ban ndogal la mooy ñaari way juróom ya ko meññ dañoo génn àdduna ci ginnaawam génn gu xaw a yéeme loolu nag nekk tiis ci moom te boobu xale la nekk njàqare ci moom jaaxle ndax amul benn mbokk bu ko taxaw loolu nag def ku dikkee bu yéeme ju doy waar boo xam ne waaye xam ngeen xale yi am na ñoo xam ne ay jàmbaar lanu ndax nee na ma daaw da ba ma loolu dalee mu nekk lu tiis lool ci man waaye nag ma des ak sunu borom mi nga xam ne moom mooy aar mboolem kum na mu aar nee na nag yàlla dogal dëj ba weesu ma nekk Argentine juróomi at après ginnaaw ne sama ñaari waajur làqu nañu te man la ñu amoon te doom maak sama benn rakk bu ndaw bariwuma fi ay mbokk loolu ndax miinuma leen dama yàgg tukki sama benn jaay képp laa jotoon a xam yàlla def nekk ma jënd benn kër ca benn site bii ñuy wax site asak naa nga xam ne yooyu jamono dafa jëndoon benn terrain ba mu fa jëndee terrain ba. booba foofu àll la woon kër yi bariwul woon waaye xale bi amoon na vision jàpp ne bu ma jëndee fii terrain d'ici quelque temps rek terrain boobu mën na nekk lu yaatu dëkkuwaay mën na faa am ma mën faa dëkk xoolal ma xale boobu am xalaat bu rafet te jekk la waaye nag yemu ca dafa jël xalaat boobu ak kattan gi mu am boole ko ak nijaayam fas yéene ànd ak moom mu gunge ko ci yoon boobu mu jël nijaay jooju nag fii may wax ak yéen nii moo yàq dund xale boobu ci yàqin woo xam ne yaakaar naa ne dëgg dëgg ko sax du neex ndax xale bi ba mu jëndee terrain ba noppi dafa ànd ak nijaay ji ba foofu ne ko fii laa jënd nijaay ji ne ko fii baax na xale ba nuyonte moom jox ko addiyee bu takku ne ko kon maa ngi dem Argentine su ma góorgóorloo ne tuut. suma ma andee xéewal ñu boole ko tabax ngay sama baay di sama yaay ngay sama lépp ginnaaw sama ñaari wayjur dañoo dañoo làkku mu nekk nag xibaar boo xam ni dafa xaw a yéeme ndax xaw a tiis trop ndax yenn saa yi ñu indil ñu fi wax wax boo xam ni sax dañu lottu wax ko waaye nag euh, bi nga xamee ni woon ndijaay ji wax ko baat yu yéeme yooyu mu ko wax di yaay ne ko incha allah bul am dara lool na xari soo demee ci jooju la réew loo am rek indil tabax mais yàlla xam na ne ni yaay daanaka sax doxewul noonu nijaay ji xale bi nee na mujj bi ma di ko yónnee trois millions lu ma am for yónnee ko quatre millions yu ma am for yónnee ko nee na ma daaw da tabaxul dara li gën a yéeme mooy suuf sama fa bàyyi woon sax ngir yaakaar ko dundee da koo far jaay suuf si nga xam ne moom la fi xale bi bàyyi woon sax ndiyaay da koo jaay jaay boobu mu ko jaay nag tax na xale bi xamuñ dara ne mu nekk Argentine di góorgóor rek waaye bu yemoon sax ci jaay boobu rek du du du nekk lu du garaaw mais li jaaxal mooy lan moo tax ni jaay di rakk ci yaay mbaam mag ci yaay xale bu ndaw bu làkk fanweeri at ak ñaar dem Argentine di liggéey di jàppal ay juróom di leen taxaw bu dégg bëccëg attan na liggéey nu mu méttee xale bi yónnee xaalis nga di ko lekk ca teewaayu bakkan lekk goo xam ni daanaka yow doo xalaat dara xale boobu sonn gi mu sonn Argentine ba démb ci guddi rek mu may woo mais bu yemoon ci kër googu sax nga ne waaw. ma nga fa di liggéey wóolu ko am ci moom yaakaar xam nga yaakaar dafa fort ndax soo yaakaaree nit ki doo essayer comprendre dara xale yu bari ñu ngi leen nax ci ay millions yu bari bari bari bari mais wuy bett na ma boo dégg ci àdduna rek ki la ko teg mooy ki nga amoon ci moom confiance ak yaakaar mais su fekkee xale yi dañu nekk bitim réew mais kan la na war a yaakaar ku dul ñi fi nekk ku seeni mbokk te mbokk yooyu ñu yaakaar mbokk yooyu ñooy na xale yi di lekk seen i alal jaay na suuf soosu ba pare wax xale bi ne ko suuf soosu xam naa ni àll la mënoo fa tabax léegi danga nga fay wéet dama bëggoon léegi nga bàyyi ba ci kanam su ko defee kër yi gën a bari su ko defee nga doog ko tabax ndeke jaay na suuf ci bu yàgg xale bi ne ko kon loolu baax na man ko yaa sama kilifa loo wax baax na ne ma daaw dama ne ko naa ma ne ma ma dama ko ne loo def baax ndax man yaay sama bay, yaay sama yaay aw ma kenn ku dul yow ak sama soxna ba pare soxnam làkk benn doom mu nekk loo xam mana dafa dafa yéeme mu ne xale bi dama bëggoon ñu def projet man ak yow ñu bokk ko xale bi ne ko xayma ñaata la toll ci projet boobu mu ko 15 millions. mu ne ko projet bi lan la mu ne ko dañuy ubbi benn poulailler boo xam ne lépp ci am ñu ciy liggéey di jaay ay ginaar jaay ay nen xale bi ne ko waaw léegi nu ñuy def mu ne ko kenn ku ne ci ñun dafay dugal sept millions cinq cent muy quinze millions wallahi alazim nee na ma daaw de dama daanaka la ma ko jox sax ëpp na quinze ëpp na ëpp na ëpp na sept millions cinq cent ngir am ci moom confiance ak yaakaar daaw da ndeke na nijaay ja def am na jëfin ñaaw yoo xam ne mais boo ko defee xale xale bi du ko xam ndax njumla ngo mag mais xajul ci xale ndekeen di jaay dafa dem fekk benn playé boo xam ni dafa am ko ko moom ba liggéey ko liggéey bu rafet mu waxtaan ak kooku fii sene ak moom jox ko un million léegi comme dafay am ginaar foofu day am accès ci playé bi day mën a foto playé bi day mën a def lépp ndax actionnaire la fa mais utul xale bi playé mais ki mu ak ak sonalel kooku xamul la nekk li bëggoon mooy den déployé boobu am ak ci biir di am ay photo foofu di am ay wax mais ba léegi ki mu jox kooku ne ci déployé bi comprendre muy photo di yónnee xale bi xale bi jàpp ne loolu mu ngi produire comme gagné na confiance sam ba xale bi gëm ko gis yëf yi ni mu doxee mu duggaat beneen projet aussi ne xale bi fii ci. Euh, euh, jas xam nga Sébikotane am na ay kër yu fa xaw a yomb yoo xam ne jamono jooju mu loon doon dikkee ay 300000 400000 mu ne xale bi léegi sax mun nañ fa am foofu 6 terrain su ko defee bu jamono yi mën nañ koo jaay xale bi ne ko amul benn problème mun ma daaw de ma defati xaalis calculé waat xaalis yónnee ko waat mu ne ma wër na Serigne Touba waxuma la sax terrain mais dara joxu ko ba fii may wax ak yéen nii barki Seydina Muhammad joxu ko dara joxu ko dara dara dara dara dara dara xale bi topp na ko ñeenti at joxu ko dërëm mu toppaat ko yeneen ñetti at muy six ans mu mujj jox xale bi ñaari million te naan ko problème daa daanoo bi Abdoulaye Wade daanoo ci nguur bi Macky Sall yëg ci ci lañ arrêté mboolem travaux yi ci la xaw ma lan lan lan xale bobu fu may wax ak yow ni mu ngi Argentine amul ben bis bo xamni depuis mu wax mo li ba legui du deugante ak mom mu nek ci tiss ak njàqare parce que mujj na jël soxnam yóbbu ko dëkk bi ay maam nek mu ngi fi rek sale sorewul mu nek acte bo xamni ni man mënuma wax ni mu ñaawé ci suñu rew lan motax xale yi ñi ñuy wóolu toujours ñoo leen di trompe ki nga bokkal ndey ak baay wala ki nga bokkal ndey wala ki nga xam ne yow yaay ndijaayam façon xeetu mbon boobu sénégalais jël man loolu moom ma jaaxal xale yi nekk bitim réew sonn nañu trop jaaxle nañu amatuñu confiance ci kenn ci Sénégal parce que ku nu wóolu rek mu nax leen te nañu amee dafa metti bataaxal yi nag ngi leen indil li tax ñu du ko indi mooy ngeen prudent ci li ngeen di def mooy ñi dégg ko fexe ba far baax mais ñi nga xam ne xamaguñ ne nit capable na lu nu mel mu prudent ci lépp loo xam ne daf koy def ndax émission bii loolu moom moo ko tax a jóg xam naa nag mënuñu ci gën a xuus bu baax waaye l'essentiel bi moo nekk nii pour kenn ku ne ci yéen mun ci jël njariñ indiw ñu fi benn xibaar pour muy tuus sa kenn ci beneen fànn waaye pour les futurs ku ñeneen ñi bëgg ñëw ci yeneen jamono ñu mën cee jël ay leçons loolu moom moo sabab liggéey bi nii muy doxe pour jël leen fàttaliwaat rek ajuma quatre heures et demie day am direct boo xam ni kenn ku ne ci yéen fu mu nekk war naa mën a dugg wax xalaatam. ci ni nga xam ne ni loolu mooy tolluwaayu thème yi muy diggante quatre heures et demie jàpp euh, dix-huit heures yéen ñëpp ñu ngi leen di xaar bu baax a baax bi leen wax ne bu ne bu leen fàtte mukk di abonné ci site bi ndax abona bi mooy gën a yomb ndax bu liëf yi génnee rek nga mën a am notification bi ci yow mu gën a gaaw waaye nag bu leen fàtte ni ñun ak yéen benn lañu vingt-quatre heures sur vingt-quatre ci loolu la ñuy dox ngir accueillir leen xaar leen ngeen ñëw dégg seen bataaxal numéro bi nga xam ni moom mooy daw ci bande de bi boo leen ci wootee di ngeen di jot waaye nag euh, balaa ñu tàggal ko ni ma ko waxee léegi rek xale bi nga xam ne moom moo nekkoon ak magam France magam génnee ko kër gi am na benn kilifa gu mag buy laaj buy laaj ci xale boobu ñu ngi kontagam mais dañu dafa xaw a réer suñu suñu dossier yi dañoo bëgg mu woowaat ñu ci même numéro bi. ñu xam kan la mën koo boole ak kooku ba yàlla def ay wër wërsëga mën a ko jërë ngeen jëf